yàgg tubaarikàlla te Lat Joor bañ ko ne loo séq ak tubaab bi daana yàgg aada moom boos dee négri day takk jabar dimanche man la may première njëkk barki Serigne Fallou Mbacké waaye dama ne réew mi ak coow li fu mu toll nii Mame Ndiaye Savon mi ngi tukki lu xew rek na ngeen ma ko envoyé ci suuf waaye à tout moment mën ngeen cee dégg samay jul ndax maanoo ma ku ne maa ngi lay woo naan la allo coow li pareegul fu mu toll nga expliqué ay cas rek ma toog di waaye nii ma toogee nii maa ngi Aïda Port Dias ma chérie tu connais Aïda Port Dias tu connais Aïda Port Dias oh maa ngi Aïda Port Dias parce que toi moi léegi je je digne je Euh, n'est pas critique que euh, bavardé léegi dama tubaab bi teg la tànk gis ngeen daal yi ma sol ay joor laa sol joor vingt cinq vingt mille laa ko jëndee joor ay joor laa sol vingt mille laa ko jëndee tubéy bi ma sol marque la y a des moyens là y a des moyens moi dama am personnalité léegi daal léegi dama am personnalité léegi moom kenn dootuma xas léegi. léegi ay maam Ndiaye dafa ñàkk classe dafa bëri soit non non barbaaxee. valise bi nag ku ko bëgg xam nga man soxoruma nag tubaarikaal la. valise bii ma yor nii ak trousseau bi ku ko bëgg da ngay woo Ndaya Beauté moo ma ko jaay. man xam nga soxoruma dama baax valise bi ku ko bëgg ak ak ak ak trousseau da ngay woo Ndaya Beauté am na ko. Ndaya Beauté ngay woo 80 000 la koy jaaye Ndaya Beauté su ngeen ko woowee dina leen ko jaay valise bi Ndaya Beauté moo koy jaay 80 000 la ma ko jaayee 80 000 bu ngeen ko wootee rek nee na 80 000 man nag damaa wàññil mais moom 80 000 la koy jaayee gis nga valise bi dafa am classe xaar leen ma wan leen valise. naa ah, ma at bi ba pare ma jongo ma nii ma jongo nii am ay ans. waaw damay buntu bi laay defal. ah. réew mi fii la toll de léegi nii. Ah. léegi nii réew mi de fii la toll wane wu. léegi réew mi fii la toll de ku ràcc jëmale sa kanam mu dëng du dëgg réew mi jamono ji fii la toll ñi dañoo am mburoog yu neex yoo xam ne. ñu la koy tàngalal ba mu tàng mburoog ton waaw man moom dama suur. yàpp bi ma lekk moom. ba mais nag tubaarikàlla macha allah waaj leen ngeen préparé takku leen ba mel ni jànjaari bosta njaay takku leen ndax maa ngi dem maro bu ma ñëwee dëbb réew ba mel ni suul ak bëjëk yére yi ngeen gis ak capuchon ya jàllaabe yi ngeen gis bëgg ko mu seer bu ma ñëwee wàññile ko bu prix bi abordable waaye dama ne xulloo beeg coow li dee leen wokk seen oom ndax mu gën a jug kaw mooy mën di jaay di daw di tukki damaa bàyyi ba coow li jax rek ma daw dëgg biir ànd ak samay ñoñ fi ne nii senegal moom noo wóoratul Sénégal moom wóoratul moom Sénégal moom wóoratul yi jamono senegal nii ma toogee wóoratul senegal moom wóoratul man nii ma toogee fi mu ne xam nga la tax may daw may bañ samay audio fii tey <laughs> duuli takke naa ci de duuli takke naa ci de <laughs> damay daw nii takkee ah waaye man moom wax dëgg yàlla nii rek laa toogee luñ ma wax ma naa maa wax waaye waxewu ma ko woon noonu jëlewu ma ko woon noonu baal leen maa <laughs> takkee naa ci de moo tax maa ngay daw naam mun naa ne rëcc naa de maa ngi ci aéroport décollé rek laay xaar ah fi mu ne moom rëcc naa ah, mbaa waa dig du ñu yónnee ne maam Ndiaye na dëpp ndax duulu da cee takk <laughs> waa dig laa wax mbaa bi ñu yónnee na waa aéroport bu leen jël maam Ndiaye duul yi da cee takke le départ kon da xaw ma lu may wax waa koñ daal kon jas laay toog jas jas rek laay toog ci ci désertu jas bi fa laay toog maayo ma waa waa maam Ndiaye ngeen jéggal ma rek ngeen baal ma seen leader fen na de seen leader bokk na ci duul yi de lu maam Ndiaye savon yi ah seen leader de duul ñam na ci duul samay audio dina fuité nag. laa <laughs> <laughs> ilaaha illallah samay audio dina fuité ay waay sama audio bu fuité lu may wax waa koñ ga. ay waay waay waay sama yaay teg ko gàcce. waay ay man fu ma jëm waay te yàlla rek tax. ay man fu ma jëm. ay waay fu ma jëm waay. waaye man li ma ci wax moom méttiwul dama cee xaw a laal noonu rek dama ci ñam ñamal noonu rek. xam nga ni dama cee ñam ñamal ñamal ñaari ci de. li ma wax moom moom moom xaw na métti xawut a bu ma ma naree tëjit dinañ ma baal dañ ne moom mooy demut ci wax ji ba mu sori waaye daal l'essentiel li ma leen mën a wax mooy. ah yuuxu dina jub fuñ ko poogee wut de. ah kii li mu bind nii. waay waay waay yàlla bu ma xaali génn ba ma yegg. ki épinglé lu mu wax. ñu dem un million ñaa ngi xalaat. tapoté leen un million. <laughs> seen dal bokk na ci duul de. <laughs> tapoté leen <laughs> maa ngay daw de. fi mu ne daw bu ma dugg ci avion bi moo ma tee dugg ci avion bi man moo ma tee man maam Ndiaye sa ma dindi sama TikTok dindi sama WhatsApp dindi sama Instagram dindi sama lépp duul yi takke nag duul yi takke après mooy gën a. nee nga ma assumé ma toog Sénégal assumé. <laughs> ah su ma dina am gàcce de ndax yéen ñëpp ngi dugal sama foto naan sunu gaynde gi kenn du ko dégg seen gaynde gi duwul na <laughs> na <laughs> jël ko Adamo leader Sénégal ana Adamo ma jël ko Adamo boss négri boss négri dugal boss boos de négri dëkk baa ngi. 50 000 dem pour le moment. boos. yow maam Ndiaye. ah. takk gi bañ ma nga fàtte ko rek yaay premier njëkkale. ma siwle ko fii yëpp Adama man la may sama benn xarit la bu yàgg bu dëkk Piacenza Italie. am nañu tubaarkaale ñu ne woon am jabar. waaw non jabar ju baax. yaa dàq jabar Sénégal yaa Wally jabar jeex na loolu yoolal xew bi daal incha allah rabbi dañuy def lu simple nag dimanche gars yi dañuy dem ñaan ak yooyu ah, léegi après bu ñaanee ba pare ma jël benn villa mooy appartement yu ngand yi am piscine léegi booy nekk ñu foo après kii ñëw nu tànn béer yi ñëw bongomaan yi ah, xam nga photographe bi day teel a ñëw 18 lay ñëw ba kii après léegi DJ def kat ñëw nag xam nga animé xew bi bongomaan yi toj mais daal incha allah rabbi moom dina yëngu. man de ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. cinq jours laa fay def ñibbisee tax man defuma sama état major def sama peñe def sama li ma war def yëpp ndaxte ni fii Sénégal ñun sunu culture bu la premier njëkke da nga cay war yëpp barki Seydina moom de wax naa ko sama yaay bare wax naa ko ñëpp ne ko maam Ndiaye premier njëkkali kenn du ko wax jóg direct barki Serigne Fallou Mbacke may nga premier njëkke waaye dootoo ko maam njaay kooku maa la ko maa la ko waxoon ba may nekk xale. loolu dafa yàgg waaw ah, kay dama ko war a sàmm. yaa ma daan wax waa yow kañ ngay takk jabar Adama boo ma ne ko bu ma la takkee jabar rek yaay doon première njëkkali. loolu du ma ko Adama boos de négri nga xam ne nag gor nga ko séqal barki Seydina Muhammad. maa ngi noonu sa xew la. ndax lii nga ma defal nii nit bokk naa nit ndey ak baay te defalu ko. ma ne yaa moom laa wax xew mi kay fi mu toll nii yaa moom. sama yaay ba ma ko waxee mu kontaan ma maam Ndiaye sa maam Ndiaye sa foo kay xam naa ko man kay keneen ki o tudd laa xamul ma ne ko ndaak sama xarit la. <laughs> ba ma ko waxee sama yaay. waaw ne ko maam Ndiaye premier mu ne ma maam Ndiaye sa foo kay xam naa ko mooy premier njëkk waaw mais man ki nga tudd laa xamul deuxième bi ma ko kooku sama xarit la mais yow moom neen xam. kontaan naa nag sama càmmiñ yow ma ne dundal yëngalal wuyu ma nag. waaw la ma la xoon rek. Uh-huh. yow bul xulloo bul xeex liggéey rek. liggéey rek. fa ngay nekk rek nekk fa. jeex na. lu coow li bëri bëri bëri. Hmm. amaluk maîtrise. dëgg la mais ñële moom may leen tuuti temps ñu damante parce que man danoo war a damante faaw ñu damante ndax ndax ndax fi mu <laughs> xam nga lu tax. waaw maam Ndiaye fi fi jaww li toll la daanu dama tere maam est-ce nga ne maam est-ce xam nga ne lu bëree ngi denc te génnagul. ba ba pare xam nga moo gën a neex aadama. na ah. fi mu ne nii da première coow li yow yaa ko yéen woon fi mu ne nga bàyyi ba coow li gën a pëtëxal nga baleel ñu songoo. non non mais coow li noonu la ñoom ñaar faaw ñu sànnante ay traces ndax maanaam xam nga la la lii nag la ay maa ngi doog a gëm nag maam li dax gars yi naan la bul tontu ngay génn di wax dafa am fooy toll. doo mën a di seere coow li day bëri hmm. dafa am fooy toll li nu lay teg doo ko at léegi nag tey laa comprendre ne génn gi ngay génn nii du sa coobare ma coobare dañ ma daan sës hmm. da fay fi waa waa dañ na tey eggaguma <laughs> wee ba dégg na te yeggaguma fa ma jëm bëgg ree ay maam xam nga lan la wee bi ci boppam moo attanul coow li coow lee <laughs> xanaa xamoo xanaa xamoo benn affaire naa la ko wax lii ay moor ma ay blessé de da ngaa rek barke Serigne <laughs> ma woon ma man kat affaire yi dama ne ma ne ko Pendo ma ne ko yow xamoo ci li nga dugg de yow kay fi mu toll nii fi mu toll nii affaire yi. <laughs> non moo dem xoola ba pare coow li moo dem ba am rythme rythme la coow li am rythme. <laughs> est-ce que xam nga ne audio boo xam ne nii mami Kobra mi ngi koy waaj a teg. waaw kuy garmi daal bu yóbboo nga déglu ko déglu ci mais di ci dégg sa tur. kuy ah tax bu ma ñëwaat. ah man daal xaw de mais fi mu toll nii daal mami. fi mu toll nii daal maam. waaw coow li fi mu toll nii maam Ndiaye Savon. Ah. ku yabu looy jaay jaay ko de xaw ma fooy dem de mais say cinq cinq jours na baax. direct baa ngi gaañu. xam nga maam. Mm-hmm. li neex ci àdduna xam nga lan la. coow loo bokkul di seetaan. coow loo bokkul di seetaan. mais nag Sénégal bu amul maîtrise yow mi coowul dina la ruux ba nga bokk jote sa yoon néew ci. man kay na wala kasi la fi tal bi rek laa talal dimanche yow dimanche la intéressé fukki jël ci jour bi dara moo ah, wul waaw la yoon bare maam boo xulawul defoo dara barki Serigne Babacar si temps yi boo xamee ni nga mignonné maam boo xamee temps yi ni nga leeree te jongama. xolo xoolal valise bi ma yor. xoolal lii. wuy barki rasulullaay eh wuy ma xale yi doo seen morom de eh mais maam wuy ma maam voyage day civilisé mais nit nan la mën a voyager maam Ndiaye safoo gàtt. yow yow yow yow yow yow maam njëkkali njëkkali boo ko moomee amul ku koy xëccoog yow xam nga lu tax parce que boo ko woowee da nga kaa mara moom. maam Ndiaye Savon mën naa ne yow ci ñi ma yar taataan ma ci nga bokk wax naa ko waxati ko maanaam wax day nuru wax maam ba may xam xale bu ndaw laa léegi daa ñëw Europe rek ësle mais yow xam nga ne yow mii xale laa xam nga loolu nekk ndaw yaa ma daan cote naan ma yemal fii duggal fee. di ma tooñ kañ ngay takk jabar ma ne la maam bis bu ma takkee jabar premier njëkkali kenn du ko xëccoog yow. danaa danaa wax danaa danaa wax loolu ba tollu fii. ah naan dama koy dindi yàlla tere. barke Seydina Mohamed. loolooy am. yaay përëm leen njëkkali tey yaa ko doon ëllëg. bilaay loolu daa leer. vidéo yi dina ci leer dina leer ci photo yi yaw kay mel na koy photo wu. moom sénégalais yi kontaan nañ. yow Malick yow sama nit nga. un million deuxième Adamo. yaw jeex na moo yaw mu nga mën a def yow nga mën a laal cinq millions deuxième ni nga mel ci xol bi mën ko ci réew mi maam nee naa la chaque jour réew mi ci xolu réew mi nga toog. bu nee Macky Sall dañ naan Mame Ndiaye Savon yaa nekk ci suusam Ousmane Sonko doog a ñëw. xale kontaan nañ la moom xale kontaan nañ la boo boo bàyyiwul fi nga jàpp fi mu ne yow direct bi dina yegg 18. yow dama ne la wuyu ma Ousmane sax dama ne la Ousmane Sonko ci suuf lay nekk nga nekk ci kaw Macky Mame Ndiaye Ousmane. <laughs> gën leen a tapoter sama waa ji. yaa moom réew mi. am nañu yow kenn day yow. barki Seydina Muhammad mais wala da nga ciy def code fi ngay waaj a dugg. non non fi may dugg defuma ci code jàllaaba yi laa jëndi Maroc laa jëm rek pour ces trois jours. waaw Maroc. mais bu ma jugee foofu incha allah damay noppalu deux daal di dem euh, Dubaay jaaree noonu dem Sine. jënd du tabaski. waaw waaw loolu de moom mooy douze yow de maanaam diggante Dubaay ak Maroc ak Sine da nga koo def comme ku saf saw barki alxuraanu karim dem saw la solaat sa silib toog boo safaatee duggaat cey am na ñoo xam ne un an lañ koy waaj daan ndax bee bi matagul naag mën na. moo tax xam nga ne fii la xamee ne kuy kuy ah waay waay waay danoo war a xam ne nag danoo war a xam ne. damay dem dama ànd ak deux employés ah. waaw xool deux xoolal lii xoolal lii cëm jongo ci e kii moom tee bi jàtt kii moom amul sa fay borom lu xonq lii. ñoo bokk ndey ak baay waaw kii moom kii moom tee bi jàpp na ko moom. waaw. waaye kii li mu jël ci doos dafa bari ndax loxo yaa ngay ñuul na wàññi. <laughs> waaw fii mais ba bu perte nag moom kele moom muy ma kele mooy kan mooy kele mooy ki nga bokkal day ak tur bi laay fàtte. Kumba Dia Kumba Dia ngi noonu. mu naan Kumba Dia du <laughs> non non mais Kumba Dia waaw mais <laughs> Kumba Dia mais wuyu ma eh maam. maam Kumba Dia moom barke Serigne dafa jekk waaw dafa jekk dafa rafet trop waaw dafa rafet trop jekk na. kii nag moom la la koy ñuul borom lu sonni nag leen rek ngay def yow doos bi ngay wàññi mais yaa nga ci.